ñu koy wax gor ca wax ja président de la république gor ca wax ja ndax wax ji danga ko njëkk bind bind ko ci charte réew mi bind ko ci sa téere nga wax ko fukki yoon téeméeri yoon fii ci Sénégal ak bitim réew nga wax sénégalais yi fii laay yem ci ñaari ñetteel mënul am ngeen tànn seen candidat ci seen parti wala seen coalition mu jàkkaarloog yeneen candidat ay sénégalais góor ak jigéen yu gore sénégalais yi tànn ci ay élection yu leer a leer bu soobee yàlla 25 février 2024 bii di ñëw